man nga jël nga jëru ñi insha allah rabbi man malako jox li wëcci la il karimi mu nekk lo xamne da fay ubbi doomi aadama te dafa lay xëccël nit ñi manam bayra la ubbe kay la ñaar yoy yëpp la taxawé bayra la ubbe kay la xubul insha allah rabbi kep ku ko soxla rek man nga jël nga jëru ñu manako may ci xol bi sedd gu li ci la il karim ma ñëw wax leen insha allah rabbi taala nak lan mom lañ koy defé da ngay fexe nga def kun bisimilah rahmaani rahiim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallim ba pare nga bind bisimilah rahmaani rahiim alhamdulilahi rabbil alamin rahmaani rahiim maliki yawmi diin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata allazina an'amta alayhim ghayri maghdubi alayhim wala ddaalin amin mu ngi nii nga am benn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 ولا ضالين امين بو برين غدا دي جيل بسم الله الرحمن الرحيم غا سوره الصرح مي الم نصرح لك صدرك وضحنا عنك وزرك لزين خرزارك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب الى ربك فارغب موغي ني بوبرغا داديكو بامتوار الا نصرح لك صدرك ودانان كيزرك لزين خرزارك ورفعنا لك ذكرك في انما العسر يسرا انما العسر يسرا فاذا فرط فانصب الى ربك فارقب الا نصرح لك صدرك نيتيل بي نا توب كو نينتيل جوروم جوروم بنيل بوكو ديفه باتي جوروم نياريل بي مومن جوروم نياري يون غوكاي بيندي مو نيك ني فرقب جوروم نياري يون الى ربك فارقب بوكو ديفه بوبرغا دادي جيل والقيت والقيت عليك محبه مني بن والقيت عليك محبة مني نار والقيت عليك محبة مني نت والقيت عليك محبة مني نت والقيت عليك محبة مني جروم والقيت عليك محبة مني جروم بين والقيت عليك محبة مني جروم نار مومي جروم نار نخي بند بابر انغا داري يلو في الناس بالحج يتوك رجانا وعلى كل دامر يتوني من كل فج حميق بين غا تفتلانتك مومي بما جروم نار بابر يتلولو مقدفين غا داري جل موغني إنا أحتيناك بسم الله الرحمن الرحيم إنا أحتيناك كوثر فصل ربك وانحرنا السان أك هو لبتر قبامت واتكم مومي إنا أحتيناك كوثر فصل ربك وانحرنا السان أك هو لبتر إنا أحتيناك كوثر فصل ربك وانحرنا السان أك هو الأبتر bu ko defee ba nga xamante ni mën na juróom-ñaar moom it nga daal di jël qul wallahu ahad allahu sama lam yëli walam yëli walam yëkkuloo ko fan axat nga bamtu ko qul wallahu ahad allahu sama lam yëli walam yëli walam yëkkuloo ko fan axat moom it nga bamtu ko ba am ci juróom-ñaar moom it incha allah qul wallahu ahad juróom-ñaar yoon bu ko defé bo paré rek insha allah rabbi nga daal dag qawatimi qawatimi mo nek ni ci turu yàlla yi di fattaaxu nga xamné moy mooy ubbi mooy kii ubbi razaqu mooy ki nga xamné moy wursegal wasihun moy ki nga xamanteni mom mo yatal manam dal yatal latif moy ki nga xamanteni moy aji ku noy karimun mooy ku baax muxti mooy ki nga xam ne mooy joxe mooy séddale qaxaaru mooy ki nga xamante ni nopp baasit mooy ki nga xamante nii moo tabee waxaabu mooy ki nga xamante nii mooy maanaam ku mën a joxoj noonu nga koy defee rek incha allah nga dagg xawaati bu fekkee nag koo xam ne nga xamoo xawaati mi nuñ koy dugalee te itim maîtriser woo ko moo ngi nii juróom-ñaari yoon nga bind ki nga xawaati bi benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn ak bii juróom-ñaar léegi bu ko defee rek nga tëj ko bu fekkee nag xamoo xaatim te maîtriser woo xaatim la ma lay digal mooy nga seetu ku la ko dugalal lu ko mooy rek incha allah rabbi boo ko dugalee ni nag noo xam ne du bokk ni ñu koy dugalee mën na laa indil beneen gàllankoor bu ëpp bi nga doon saafara moo tax mbir yi def ko am ci xam-xam di ko def da cee baax waaye boo ci amul xam-xam di ci tëñëx tëñëxi amaana mën ngaa dem ba gaañ sa bopp moo tax lu nekk rek da nga war xam bala nga kaa def xam doo ko def waaye doo def ba pare di doog a laaj da ngay xam doog a def waaye boo xamul def rek musiba naaru laay mën na cee fekk moo ngi noonu képp ko soxla rek jox naa la ko li wicci laahil karim والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته